député génn si war a dégg ci wax ba yegg fii tey ñu ne ñu tey dañu indi ay sommation pour déguerpir ñu vendredi loolu mënut nekk monsieur le ministre. xamante nañu bu baax a baax. toog nañu bu may tay Sénégal pour tous la ñu wax. ku ci ne da nga am say droit. nit ki boo ko bëggee tuxal. nga wax ko ne dama lay tuxal. nga seet procédure bi nga war a jaar nga jaar ko. bu fekkee Sandaga dañ ko bëgg a nangu suñu loxo ndax amuñu doole nañ ñu wax délocalisé buñ ñu wax ne recasement recasement doo ko jëlee ci commune bi yóbbu ko ci beneen commune ñu teg ko loo xam ne du ko attan te fële ñu recasé lan la woon marché la woon ñu jox ko ay nit doxul ñu bàyyi ko fa ñu ñëw rasé waat yi bëgg ko defaat marché bu doxoon ñañ ko joxoon jël ko ñi fa nekk ña fa nekk depuis 2014 ña baal yëpp ñëw dàbbaliwaat foofu Sandaga bii ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko bokk. jaajëf père ñu fi nekk yàlla ma ñu chance ñu def fi 40 30 50 ans il faut ñu am lu ñu wax ak ñun 10 ngi nii ministre bi toog ñun pour wax. dem nañ fa wax ko artu ko. nee nañ ko li ngay defar fële boo ko defaree ba pare di ko wéetewoo parce que dem nañ fa di photo ñu bañ dem nañ fa di xool ñu ne duñ fa dugg boo ko liggéeyee ba pare ne ñun nga ko liggéeyal nga ne dang ñuy invité ñun lu ñu bokk bu ñu ci invité duñ dem loolu mooy erreur de communication bi mu def waay te li mu wax aussi parce que war nga sacrifier cinq mille personnes ndax boobu xale boobu xale mooy lan nee na day def Jeux olympiques deux jeux olympiques de la jeunesse loolu war na tax ñu sacrifier plus de dix mille personnes pour loo xam ne quinze jours lay duré lu ñu bëgg problème boo gis ci àdduna solution bi mooy toog waxtaan il faut mu toog waxtaan ak ñun ñu wax ko li ñu bëgg ñun d'abord suñu marché bii bëgguñu fee jóge tey ñu ko mënee defaral ñu defaral ñu ko ñu toog continuer na ba nga xamee soo jëndee kër tey. waaw ba ko tabax. du sa caag ne ki dëkk ki dend ak yow da nga naan ko tuxul. amul fenn. waay loolu benn bu ñu demee ñun dañu ne woon réhabilitation. leneen la fa xew nag benn plan moo fi dugg boo xam ne xamuñu fu mu jógee ñun président la ñu waxtu suñu jafe-jafe ak li ñu naqari mu ne tooñ nañ leen dinañ ko réparer dinaa leen defaraatal marché Sandaga dolli leen ci centre commercial R plus 5 parce que ñun ñoo ko sàkk woon pour que ambulant yi nekk mën a am place. tey benn samba booy jóge fële ñëw bëgg a nangu suñu projet projet bi ñun ñoo ko jur ñoo ko togg ba mu ñor du ñu nangu à la plage bi ñu nangu beneen projet di ñëw ci fi toll tey nag mooy lan ministre bi suñu jarbaat la suñu rakk la nañu woo ñu toog ci table di trouver solution mais taxaw fële naan ñëw leen bindu loolu yàqu yàq wax la ñun dañoo am recensement voilà fiable kon duñ toog ba tey ñu naan ñëw leen jënd dugg foofu pour tasaare ñu loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ah Sandaga bii ñun ñoo ko moom ak suñuy libéré yi commune boo gis